Euh, bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñi maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag kii ma toogal defe naa ne xàmme ngeen ko bu baax a baax léegi internet yi wala sénégalais yi moo xam ñu nekk fii la ak ñu nekk bitim réew muy Makan Mbengue bu buñ ne Makan Mbengue nag suñu xel day dem ci Gaston Production suñu xel nag bu demee si Gaston Production yaakaar naa ne suñu xel tamit day dem ci le premier janvier incha allahu rabbi 2023 yàlla nañ ko fekkee te ko ay bés yu néew moo ci des ñu jëm ci combat bi moo tax nag tey ñu ñëw toog fas yéene waxtaan ak Makane parce que combat bi fi mu nekk nii dëgmal na wax ji bëri na yaa ngi dégg tey nag olof a koy faral di wax rek maa fekkee bakkan lay laaj te comme moom mooy le promoteur moom mooy doxal di ngeen ko li ci Abdoulaye Ndiaye wax waaye dooy terewul moom mi nga xam tamit moom mooy le promoteur ah la personne morale ñu ñëw seet si ko tey Makane maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay. Mhm. di la delloo ziar. Mhm. di la sant di la gërëm ah, ci seet si bi donc euh, di nuyu waa Sénégal askanu làmb ñiy bëggee làmb yëpp mhm. diaspora mhm. léegi dafa mel ni moom léegi ñuy bëggee làmb bëri nañ instant moom on est international nekkatuñu national waaw <laughs> ah, international <laughs> am na solo makan defe naa ne Balla Gaye numéro ak booy Niang fi mu nekk nii ñu ngi ci tournal bu mujj bi virage bu mujj bi comme ni ñu ko mën a waxee maanaam combat combat mën nañ ne dimanche bii di ñëw incha allah bu dellu see mooy combat bi. Mhm. tombeeg le premier janvier 2023. combat bi actuellement fan la ci Gaston Production toll fi mu nekk nii ci côté organisation bi si seen digganteeg mbër yi ndax nag bëri na bruit. waaw c'est normal nag mu bëri bruit parce que du làmb bu ndaw. waaw euh, gis nga Balla Gaye Boy Niang mm. ca signature contrat bi la bruit bi commencé. daaw ah daaw ci kër gi waaw bu ñuy njëkk jot seen seen seen euh, euh, avance ok donc euh, soraano nag moo dekkil moo gën a dekkil yëf yi Sorano ba léegi foo dem grand place boo dem moom la ñuy waxtaanee kenn du def live te waxoo ci bàll Gaye Boy Niang la kenn du dem làmb koo mën ti jox micro hmm. di nga ko laaj Balla Gaye Boy hmm. donc làmb ji ci boppam moo jaay boppam ba pare hmm. ñun boog lu ñuy def mooy xanaa mottali yéene gi rek Mm-hmm. mais combat moom jaay na boppam ba pare le premier incha allah. Mm-hmm. mbëri pare nañ. Mm-hmm. ku gis booy ñaan keroog forme bu mu am man xaw ma sax ndax mës na ko indi ci làmb. booy Balla Gaye gis ngeen vidéo bi di circuler fan yi. ok waaw am na benn bu ma gis de. waaw mi ngi mel ni ku dellu 10 ans ci ginnaaw. ku ci nekk ñoom ñaar jël nga bës bi yenu ko. ku ci nekk foog ne ne yaa mën sa morom ku ci nekk foog nga nii le premier di nga toroxal sa morom. donc cey euh, le premier. cey le premier waaye. xam naa ni amin amin yaa rabil coow li nag bëri na c'est normal coow li bëri c'est normal coow li ci côté ñaari waaw mbër bi da ngay dégg mara day tàlli sax laay wax balaa may laaj laaj bi mm. ay kii ndiggam day metti kii loxoom day metti père Gaston wéra dina fii évacué na mu nga France lamb ji dootul am coow yooyu tamit yaa ngi koy dégg dañu dañu nekk dañu nekk ci dëkk boo xamante ni moom loo def ñu wax loo deful ñu wax Mm. donc euh, ñu ngi jóge fan ci coupe du monde bi. waaw coowal coupe wax nañoo wax a wax a wax wax ba ndeysaan toog nañ. waaw euh, Sénégal dañu war a yéenante suñu bopp jàmm di di di di di ñaan ñu am ndam ñun làmb la ñu am. Mm-hmm. nañ ko fonk benn. Mm-hmm. nañu fonk làmb ndax moom la ñu am. Mm-hmm. ñu ngi koy jaay di ko génne ci dëkk bi. Ah, euh, ba ñëpp di apprécier. ba léegi soo xoolee. nit ñee ngi génn sax di dem ay MMA. di gën a wane suñu bopp. Mm-hmm. loolu yëpp ci làmb la dooree. Mm-hmm. moo tax mu demee noonu. Mm-hmm. Euh, beneen affaire. feebar. doomu aadama day feebar. waaw ah, loolu daam na ñëppay feebar ku dul feebar. yàlla ko defe naa ah defe naa ne ku dul feebar daal doo nit. donc nañuy yéeneente jàmm Père Gaston li ñuy wax nii wax ji bëri na lool. ba mu feebaree du tey. donc euh, dem na Paris dafa noppaliku ci donc ñu koy ñaanal jàmm. Mm-hmm. di ko ñaanal wér ak gudd fan. Mm-hmm. mu dellu si ci njabootam fu mu nekk nii nañ ko bàyyi mu noppaliku. ah ku am 73 ans nag. su dee am nga doom bu toll ni Makan Mbengue mën a dérouler waaw bàyyi leen ko mu dérouler père di seetaan seetaan na ba toll fii mm-hmm. su ko neexee nag su ko neexee mën naa ne maa ngi dem noppali ko ji tuuti mm-hmm. loolu rek kon coow li ñuy wax ci maladie weeg yooyu jàppal bàyyi la ak nangam yëpp maanaam donte feebar am na waaye nag dafa da caa boole wala ab dallu su ma la déggee noppalu waaw kay jeex na tax mi ngi noonu donc na Sénégalais yi xaar le premier incha allah mm-hmm. ñu seetaan làmb ju neex ndax ñi koy xaar bari nañ ñi koy xaar bëri nañ. Mhm. donc euh, euh, lamb ji Balla Gaye boo ñaar dafa ànd ak coow c'est normal. Mhm. bas bi la. Mhm. bas bee ko laaj. moo gën a yokk xorom si sax soo soo soo xoolee ba ah, xool kay moo tax mu nekk nii moom gars yi ñëpp bëgg a xam moom ñëpp a ngi concentré wu ci bés bi waaw loolu sant yàlla la rek mais comme yenn des fois da ngay dégg yenn souvent comme tamit dañ koy faral di wax comme yaa léegi coupe du monde bi su coupe du monde bi mu ñëwee gis nañ nekk ay mara yaa ngi dégg ñoo xam ne dañuy génn ci internet bi ñu duppee leen ay mara wax nañ ci coupe du monde bi Sénégal toog na après ñu waat ci Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñooñ tamit boo amoon message boo leen di lancer ban lay doon. ñu dellu ci yàlla. d'abord. ñu dellu ci yàlla. Hmm. waaw loo tuddee dellu ci yàlla yow. nañu nañu nañu nañu gëm yàlla bokk. Hmm. waaw parce que am na loo xamante ni bugguma ci wax quoi. bëgguma ci man ñoom lu ma leen seetaan sax nit ñee may woo naa ma dégg nga diw dégg nga diw man leen duy loolu kuy kooku xawma leen benn donc euh, gis nga père Gaston nee na du saraxe doomam yàgg na ko wax ci table. waaw doon naa dégg mu koy wax. waaw jóg na yàgg na te makan tamit toogul. mbaaru kon ñoom ñooñu di wax naan père Gaston lii wala combat bi lii. ñoom xaw ma xaw ma lu lañ ci jublu xaw ma lan lañ ci jublu mais man maa ngi concentré wu ci sama bës maa ngi concentré wu ci le premier janvier. Hmm. incha allahu rabbi yàlla rek mhm. moo am mhm. yàlla mooy def mhm. li te yàlla na def li gën le premier janvier amin ñu fekkee lépp ñu fekkee lépp te ko incha allah di ngeen fekkee bés bu neex drapeau consec la nag bu kenn yàq suñu drapeau consec waa foofu tamit dinaa fa dugg lu tax drapeau consec yàlla na ko yàlla jéggal lan moo tax ngeen choisir consec pour delloo ko njukkal ci bés bu le premier janvier di bés boo xam ne ñëpp a koy xaar monument la Sénégal Thione lu mu def ci réew mi rëy na rëy xamante ni jar nañu tuddee ko drapeau mu nekkoon coloré père ba pare waali di sama xarit euh, yoon la daal yow yowaali keroog ndeysaan ci concert wu géejawaay bi ma mhm. nee na ma makan ma ne ko naa ma ne ko le premier di nga xam ni Thione am na bokk moom wàll lii la la wax. nee na ma di xam ni coon am na mbokk kon xam nga ni waa lee ngi waajal bés bi. ah wallaay wallaay loolu rek jar na ñëw seetaan si. te waal defe naa mosut ñëw arène nationale de daa mel ni. loolu rek jar naa ñëw seetaan si. loolu jar naa dagg bi ñëw seetaan si. ok lu koy kon. sans compter leneen yi Gaston production di indi ci bés bi. Mm-hmm. surprise yi dina bëri parce que le premier fête la. Mm-hmm. dootuma wax sax fête internationale mais fête internationale parce que dinañ dina ko seetaan fépp ñëpp a koy xaar ak jàmm ku ci nekk ngi woote naan fan la ñu mënee jënd billet ku ci nekk waa diaspora ñi ngi xool naan ñu ngi dugg seen affiche ak di laajte donc bés bi ñëpp a koy xaar mm-hmm. te incha allah dina jàll dina am bu soobee yàlla suñu borom Mhm. léegi ba tey ma duggaat feneen mooy ci côté télé yi parce que gis nañ leen fii ngeen def fi benn signature boo xam ne nii yéen a ko defoon Sorano ak euh, ITV Sen TV deuxième bi ci toppaat ngeen def ko 2 trois troisième bi ngeen defaat ko ITV ak Sen TV te maa ngi déggaat ci ay rumeur naan dernière signature bi TFM lay amee lu xew seen diggante ak télé yi bagante bi. non bon télé yi ñu ñoom ñëpp suñu partenaire lañ suñu sañoon xam nga ku nekk am ci benn face à face vraiment suñu sañoon ñun euh, télé yi vraiment buy Gaston production di Gaston production ba léegi télé yi suñuy partenaire lañ mhm. donc euh, TFM lañ jëm dimanche cinq muy doon dernier face à face bi. dimanche prochain dimanche bii di ñëw incha allah 21 heures mën nañ ko commencer suivre ci euh, TFM. ok teg ci. Mhm. le euh, lundi bi ci topp. lundi lendemain bi quoi. lendemain su ñu nee dimanche waaw booy ñaan day def. Euh, open press am Alassane Djigo mardi bi Balla gay def open press am ca Amadou Bari. Oh, donc euh, pare nañ. Hmm. su dee loolu mooy demande bi Gaston production pare na. pare ngeen booy ñaam pare na. Hmm. Balla Gaye pare na. Hmm. Balla coon waa kër coon pare nañ. Euh, incha allah dinañ jëm ci bës bu neex comme ni ma koy waxee. Mm-hmm. ñu neexal bés bi wàllum sécurité jël naa samay matuwaay bu mat sëkk. Mm-hmm. bu mat sëkk. mais bala maa dugg ci sécurité bi dama bëgg des tuuti ci télé yi parce que télé li tax ma ci des mooy li tax ngeen mujje TFM parce que au début gëj nañoo gis Gaston Production liggéey ak TFM yeneen télé lañ doon gis lan moo tax ngeen mujjee fa dernière signature ngeen jox ko waa TFM. lan la dafa am ci diggante bi lu bees lu fi am wala dañoo ñëw comme partenaire boo xam ne nii dañu war a def bokk ci ñi def plateau direct yi dimanche wala nu mu demee noonu. non TFM musul musul bañ a nekk partenaire Gaston Production xëy na gën nañ fa def face à face mais TFM suñu làmb yëpp dañu dugg ñu ngi seen caméra dañuy filmer dañ ciy commenter dañ ciy wax. TFM mhm. Youssou Ndour euh, PC mooy PDG bi. Mhm. Birane sama xarit. sama xarit la mooy DG bi. Mhm. sama ñoom tonton ñoom euh, Boubacar Ndour. Mhm. jàmm rek lañu sekk. Mhm. donc euh, TFM dafa am wàll ci làmb ji. dafa am wàll ci làmb bu baax nag. da ci am cër bu baax bu baax bu baax parce que euh, làmb ñë du du du Gaston production kase du ITV kase du Sen TV kase du 2S kase wala. làmb ji ñëpp la. dafa yaatu daal dafa dafa mais làmb la am. ku deful émission ci xol ñoom ñëpp am nañu émission ban télé moo amul émission ci làmb amu fi gay hmm? donc làmb dañ moo tax nag ñu war a gën a fonk làmb mhm. ñu jox ko cër bu cër boo xamante ni mhm. c'est que ñuy dund ci làmb da xam nga dafa bëri waaw donc donc waruñu koo yàq mhm. waruñu koo yàq ñi ciy daan seen doole bari nañ lool lool lool lool donc waruñoo yàq làmb nañ ko rafetal rek ak lu mu gën rafetee. Mm-hmm. waaw bu kenn jéem a yàq loo xamante ni ñu ñoo ko moomal suñu bopp. Mm-hmm. ñun Sénégal ñoo moom làmb. Mm-hmm. donc nañ ko sàmm. maanaam ñu sàmm ko mais le premier ma euh, ci côté sécurité bi yaa ngi ci doon dugg léegi. waaw sécurité bi bon parce que gis nañ seen ay bés day faral di am sécurité mais bii di ñëw dafa xalaat xalaat naa mu rawate ci. parce que Balla Gaye 2 Boy Niang muy Guédiawaye ak Pikine ñu digaloo ay tool arène nationale bi ni ci digg wi nekk seen wu digg. loolu non loolu moom euh, Gaston production moom bu ngeen ko xamee ba léegi balaa muy def dara ko n'importe quelle organisation. lu mu njëkk jiital mooy sécurité. sécurité d'abord sécurité d'abord na sécurité su amul làmm moom mënul am. Mhm. donc foog ñu jiital ko. Mhm. on sait jamais. ñañ dalal xelu ñiy ñëw di seetaan si ak ñi dëkk ci alentour yi. Mm-hmm. moo tax may jiital sécurité kon nag biir arène nationale police bi moo ko nar a gérer. Mm-hmm. mu nuyu sama tons commandant Ndaw mm-hmm. di ko sant di ko gërëm commandant Thioune. Ah ak euh, lieutenant yëpp adjudant yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm la police en tant que telle. ndax euh, ñoom euh, ndeysaan Gaston production su taxawee rek. ñoom dañuy taxaw mel ni ñoom ñooy organiser mel ni ñoom ñoom moom bés bu baax. la gendarmerie pareil. colonel Mbeng commandant ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm suñu jógee rek saan ñu jël bés bi mel ni ñoom ñoo moom bés bi doxal ko ba dara du ci am kon nag euh, supporters yeeg amateurs yi na seen xel dal mën ngeen ñëw seetaan si jàmm ñibbi si jàmm te dara du leen dal bu soobee yàlla suñu borom côté billetterie bi moom côté billetterie yi commencé nañ jaay euh, depuis euh, un moment depuis defe naa léegi mu def deux semaines ñu ngi jaay billet ñu ngi koy jaayee ci Jolof Chicken yi jolof chicken yu Dakar Sénégal yëpp foo dem di nga am billet même région yi sax suñu demee seen jolof chicken suñu defee seen commande ni leen am seen billet. Euh, ñu ngi koy jaayee aussi restaurant la kalam mooy fii ñu nekk nii. ah day jaay ticket yi tam. moom tam mhm. ku bëgg billet mooy fii ci Mariste immeuble Scorpion restaurant la kalam ku bëgg billet tamit mën na ñëw fii ñu jaay ko billet. Mhm. ñu ngi koy jaay aussi su dee ñi dëkk ay Sacré Cœur Mermoz am na boutique habillement bu nekk euh, Sacré Cœur en face Auchan bi. Mhm. wetu boulangerie jaune. Euh, boutique bi mi ngi tudd Marema shop foofu tam soo fa demee di nga am billet. waaw prix yi nag ñëpp xam nañ ko 5000 la mooy euh, euh, bu gën a yomb bi. 15000 mm-hmm. mooy amateur. Mm-hmm. cinq mille annexe loge mille francs VIP. Mm-hmm. voilà loolu la quoi loolu mooy ticket yi. ñi nekk diaspora nag. seen affiche point comme ku fa dem. waaw soo cliquer ci Balla Gaye booy ñaar di ko gis di ko gis. seen affiche point com borom pay yu baax yi muy nuyu bës du mën a ñàkk ak waaw bës ñu ngi koy wéggee depuis Canada bës bës su dee sa xarit la wax ko mu takk jabar quoi parce que booy boobu bës non bës bës bës bës léegi rek hmm? yàggatul yàggatul ah yàggatul na su xoolee ba rakkam yi takk ci kawam moom ay ñoom Pape Bouba yooyu moom dina doy waar di <laughs> Pape Bouba moom du ñu ta takk jabar su ko defee maa koy indi nga di problème mais tamit dinaa la ko laaj xam naa sax laaj wax waxaat lay doon côté hmm. sit internet yi parce que tamit boobu ba tey gis nañ ne donte site internet nag dañuy def promotion Gaston production parce que dañ ciy bay seen waar ba mu mat sëkk mais itam mayagu ngeen leen benn sens ci bisu làmb ja ñu am ci au moins dara sax. non loolu moom euh, xalaatuma ko parce que Gaston production. gis nga sponsor yu muy indi ci làmb macha allah kaar. Mm-hmm. dañu soxla seen visibilité comme ni ma ko yàgg waxee. Mm-hmm. Euh, site internet yi certes ñu ngi ciy bay seen waar. Mm-hmm. ñu ngi ciy liggéey. ñi ngi def communication baax na ci Gaston production baax na ci site tamit bu koy def euh, lu tax ñu may leen ñuy jël mbër yi wala ñuy dem ci open press wala ñuy dem ci yeneen ak yeneen mhm. yooyu yëpp c'est parce que ñoom tam dañ cee bokk moo tax ma ne làmb ñu ñëpp ko moom mhm. mënuma leen xañ jour làmb ji ba pare di leen xañ leneen mhm. waaw moo tax euh, vraiment daal communication bi yéen a ngi ciy jàpp man dama leen ciy sant rek di leen ciy gërëm. Mhm. ba pare euh, yéen tamit xam naa ni. Mhm. ñàkku leen ci gis seen bopp. <laughs> waaw nañ su dee wax dëgg rek la moom euh, nañ wax dëgg rek ah <laughs> donc boobu boobu boobu daal mooy seen mooy mooy seen may. waaw boobu waaw. <laughs> ñu jàpp ci loolu daal. voilà. am na solo remise drapeau bi kañ la. bon remise drapeau bi fan yii rek parce que Wally dafa war a voyager euh, dafa war a dem Gambie. Mm-hmm. léegi maa ngi xool ak moom euh, soit mu nekk euh, avant muy dem soit mu nekk su ñibbisee rek ay côté le 26 27. fekk nga fekk mm-hmm. dina ko fekkaat Dakar balaa làmb ji incha allah ñu def remise de drapeau bi. Mm-hmm. remise boobu moom xam naa ku ma fa dëgg ne ma massa nag <laughs> du mën a ñàkk de kooku moom. makkan dama la koy teel a wax. ndeysaan remise de drapeau bi. waaw ah, mën naa nekk de amul ah, problème da ngay ñëw non da ngay ñëw ah yow mais ci man nga bokk. Ah, yow fu ma dem nag may topp. ah kon man na kon loolu jeex na tey boo amoon looy wax waa làmb ak sa mbokku promoteurs yi parce que bés yi fii war a ñëw tamit ci kanam bari na ah mu mel ni promoteur yëpp ñu ci baree bari engagé nañu ay bés yu mag a mag a mag a mag a mag ah bis yi ci njëkk mooy gis nga samedi Tapha Mbeur ak nga xam ne ni moom mooy xale bi ñuy wax Gamou Gueye bët set Baba Diaw ñëw moom tamit indil ñu le 25 décembre ah, ay grand combat léppi grand combat ah. mais sant yàlla rek. loolu loolu daanaka mooy démentir ñii di wax làmb dee na wala ñii di wax naan làmb yàqu naak wala ay affaires yooyu. Mm-hmm. ndax soo xoolee ba xool samedi ak dimanche léegi gars yi ñu ngi tëgg. wallaay tey journée yëpp fees na àllarbaay tey yëpp fees <laughs> na. waaw soo tëggoon nii nii nii da ngay dem rang yi pour xool ban jour lañ lay jox. da ngay rang donc làmb deewul. làmb deewul làmb mënul dee mënul dee xëy na promoteur bu mag bëgg génn mhm. làmb yu mag yi ngay namm mhm. grand événement yi waaw ah. comme ay Balla Gaye Boy comme Gaston production bu mu génnee woon xëy na ay benn wala deux combat nga daan gis xëy na ci anne bi wala ci ñaari at mhm. mais nañ sant yàlla rek saison de feu bi Gaston production def le premier er janvier ñu débuté ko. Balla Gaye Boy Niang. le 14 janvier ñu ngi jëm ci Sokk Marle. 14 janvier Sokk Marle. deux après. la loolu da ñëw na. loolu bés bu rëy a ngi noonu. loolu ñëw na kay. Euh, le cinq mars bés buy ñëpp di xaar. mooy buy ñëpp di xaar mooy Sa Thiès Reug boobu day wax la. Sa Thiès Reug Sa Thiès mi ngi lay fàttali. Balla Gaye Modou Lo premier combat. Oh, ci bés te dama ragal ni bii mooy raw boobu. loolu laa foog. ndax coow li bii bu mu commencé. rëg bërki dem dégg naa ko micro mu ne ma du ma wax ci kooku damay bàyyi ba bis bi mu wan ko li ma. non rëg. Sa Thiès ne ma kere lu mu indi dina fekk lu ko duggul. non ñoom gis nga ñoom ñaar. ñoom ñaar kay xam naa seen xiironte. xaaral ba le premier. dineen saafante. ah le premier dina ñëw ci bis ba. ci bisu Balla Gaye booy ñaar dineen saafante. ilaha illallah loolu kenn du ko lijjanti foofu lay bal bi di tàqee ci ñoom ñaar foofu la bal bi mais fi may jeexale ak yow parce que Gaston Production depuis lors mu ngi def pay per view pay per view noo ko gisee yow est ce que Gaston Production mu ngi ciy gis boppam mais bien sûr Gaston Production mu ngi ciy gis boppam mais pay per view suñ ci gis gisuloon suñu bopp duñ ko def kon lu baax la pour promoteurs yi bay ah promoteur yi nga koy def de. waaw loolu daa am na moom. ci ku mu baaxul du ko def. du ko def waaw. Hmm. donc euh, pay per view baax na. Hmm. pay per view euh, mi ngi dimbali. lu hmm. ma promoteur bi kase de. mais mbëri. parce que tax promoteur am fitu. jox la yenn xaalis yi jox la benn xaalis bi. yaakaar ni su defee pay per ba waa diaspora seetaan wala ñii waa Sénégal seetaan. ci xaalis boobu noonu am na lu mu mën a fat am na lu mu mën a am na pay per view bu mujj bu mujjee am mhm. gars yi ñu ngi doon kaas ne kiiwul kiiwul waaye ñi ci ñi ci ñi ci ñi ci ñi ci am problème yëpp delloo nañ leen seen xaalis waaw loolu déggoon naa bés wax ko lu ñi ci am problème delloo nañ leen seen problème wax woo ma ma delloo sa xaalis ku ci woote ne seetaanuma suñu vérifier ni que effectivement kii seetaanul waaw delloo na la sa xaalis mhm. donc problème amul foofu amul ci pay daal amul problème amul arnaque amul dara waaw arnaque la mu arnaque sax dégg naa. waaye loolu parce que am na ñu koy wax. waaw loolu loolu sa kàddu bu rëy la quoi non amul amul. arnaque c'est grave ñun euh, ñun Gaston production. boobu hmm. jóguñu pour arnaquer kenn. te du ñu dugal suñu yëf ci kuy arnaquer. dëgg la du ñu dugal suñu yëf ci kuy arnaquer suñu xamoon ni que diw suñ ko jëlee day arnaque. Hmm. ñun duñ ko def ndax àq boobu diis na lool ah, waaw donc ku def pay view ku jënd. Hmm. su wootee ne seetaanuma mm-hmm. waa PPV am nañu xarañte goo xamante ni am nañ ay technicien mhm. ñu dugalee code bi xool ni kii seetaanul. Mhm. dañ koy rembourser xaalisam. dañ koy rembourser xaalisam. waaw am na solo kon rendez bi ñuy joxe dimanche lay doon ca TFM ah. incha allahu rabi incha allahu rabi. mooy dimanche bii di ñëw le 25 dernier face à face bi ah. la TFM ngeen xaar ko en direct sur la TFM. am na solo kon kooku mooy Makan Mbengue moom mooy le patron le Production ànd ak ñoom Abdoulaye Ndiaye ak ñoom Aline Gueye di ci liggéey ah ñuy suñu père Gaston Mbengue depuis France gi mu nekk. di ko ñaanal wér di ñaanal Sénégal yëpp képp ku wéri daal yàlla na la yàlla defal nga wér ndax man mi di wax ak yow sax fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg makan sama mbag mi métti gi muy métti mhm. soo mënoon a dem Paris sax faje ko danaa fa danaa fa dem mhm. waaw moo dogaloon bii sama ah wéeru di moom defe naa ñëpp lay dal di comme comme dégg naa fan yi les arènes bëri nañ xaalis <laughs> waaw mën laa daggal billet Euh, ñu am fu ñu la mën a def ba nga xam ni que soo ñibbisee moom. waaw da ngay delluwaat ci say vingt ans. ma noppalu ba bu waaw waaw loolu laaj na ko. ñu maasa xam naa ne ndax Père moom su ñibbisee moom xam naa dina dellu ci ay quarante ans am. dina bu soobee yàlla. am na solo kon yàlla na ñëw ak jàmm yàlla ñëpp am jàmm. incha allah drapeau Thione Balago Seck yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon koo xam ne tamit bay na waaram ci réew mi kon le premier du janvier daal yàlla nañ ko fekkee te ko. amiin du yomb ci arène nationale lay ame